Dakar Info TV dafay nekkaat mbégte contentement comme ni ñu amee habitude di ko def euh, tey nag émission bi dafa gën a spécial parce que ki ñu seet si c'est un peu spécial euh, nekkatul koo xam ne dañ koy présenté ci milieu showbiz wala nga koy ci fànn yëpp macha allah euh, tey nag moom la ñuy seet si fa seeni waxtaan ak moom sans plus tarder dama koy bàyyi rek mu nuyoo ndax mu nuyoo ngeen xam kan la salaamaaleykum. waaleykum salaam ginnaaw ñu ngi siyaar ñëpp di kontaan ci. télé bu mag a mag bi déplacé wu nii pour ñëw def ak ñun entretien di siyaar waa Sénégal di siyaar monde entier ah di siyaar sama ndey ak sama baay di siyaar le président the king of the mi Wally Balago Seck di siyaar Faramareen yëpp di kontaan ci seen teewaay ñoo la gën a kontaan bu baax met ku ko xam xam ko ak Wally Balago Seck euh, ñuy euh, rakkam di takk jabar ñu gis ni que sa oto la wàccee Euh, yéen a àndoon alors que ku xam waari xam kook ci ay oto lan moo tax mu choisir. waaw non mais mais xam moom mooy li muy wax rek moom ci boppam xam nga dañoo yàgg yàgg nag moom xam nga ku yàgg mën a mën a fekkee lu nekk te lu yàgg dëgg la 2009 mm-hmm. 23 xale bu ci juddoon tamit boo xam nga boo jàngiwul école tamit magum jëm nga dëgg neexul mm-hmm. ah? waaw. bu ñu waree bu ñu amee programme bu toll noonu ñu ñu doxalee diñ ci doxalee mais génn ànd ñëw pour ñëw ñaan si mais noonu la ñëwee rek ah, naturellement la ñu ñëwee wàcc génn moo bi sama oto mu yéeg ñu ànd dem loolu amul leneen. <laughs> est-ce que nekkul ni bi nga jige ak moom la parce que boo xoolee Wally ku ko xam-xam ko ak ay oto. waaw Wally oto yi mu yor oto ci xolam la nekk. mais dafa bëgg oto bëgg oto nag moo peut gën na ko yokk tax bu gisee oto bu rafet da koy nangul ndax xam na oto comprendre fu ma waxee euh, du problème mu choix moom du problème mu choix ci la fait que mu yëg sama oto ñu ànd dem mariage bi dugg na fii génn fii boobu problème mu problème mu temps la woon quoi xam nga sama oto mu ngi ci biti moom oto mu ngi souterrain le temps muy wàcc di ko jël taal génne ubbi bunt yi ak yooyu day jël temps te tardé ma a koy yéegal sama oto ñu dem mu yëg ñu dem xam nga. Euh, dañu gis euh, Met Shop sur scène dafay battre liquide ñenn ñi dañ koy xayma ci quinze dix ba trente millions euh, te nee nañ Met Shop yorul mais Wally moo koy sagal. waaw Wally moom sagal na ku ne xam nga kooku mbay si sax aawu na ko. du dëgg waaw lu jëm ci côté showbiz moom façon bu nekk ngay dégg. te man waa Ndakaaru li may wax rek man waa Ndakaaru man. dañ ma xuuxalul man xam man xam nga dama leen jiitu ci li may def démb tey soog a ñëw moo tax waa tey bu ñuy nekk di yorante ak man duma ko bëgg mhm. je préfère waa démb mhm. guerre ak man wala di bëgg attaqué jëm ci man ñooñu laa mën a lijjanti mais pas ñi nga xam ne ay wàcc bees lañu mhm. ñu leen wooye ay wadd awma seen jot mariasin bu woyoon tey ci ngoon léegi-léegi bu commencé waatoon ma dem fëgg la ma war a fëgg ñëw bokk ko yéeg ci kaw seen bi attaqué ko mu woy ma lu neex ma daw fëgg fii kuy gor sa yaram deretu gor nekk si bu waali ne dar tudd sa tur sa tur ndey ak sa baay war ngaa miraas sa jëmm jox ko comme ni ngeen koy defee yéen ak bongo maani rek wala nekkee ci xew yi du ku ñu wayul nag moom ak ku ñuy way du benn nit yoon na un milliard bëgg waali way ko mënul fexe ba way ko mm-hmm. yor naa ay plainte yoo xam ne mat na deux cent mille plainte mm-hmm. ay doomu aadama yu bëgg ay way mënul mm-hmm. ko def waali boo ko waxee sax tur yi mu fàttewaat ko parce ñooñu dañoo wayaabalul way bi da koy yëg lu muy yëg la du lu ñuy forcé du xaalis kenn mënu koo jënd mm-hmm. milliardaire la mm-hmm. yooyu safu ko mm-hmm. mais ñu naan nag Met Shop yorul te boo taxawee suy seen ngay baat rek waaw xam nga li ñuy wax bu baax wax nañ dëgg nag ndax fi moom kenn moo yor muy rabbu samawati wal ardi ñun ñëpp dañuy jékki-jékki amee dara ca kaw la ñuy amee nag ñun bu tombee waaye ji di way dinañ ko yëkkati bàcc ko ko bàccaat ko ko xam nga rëkkum dikk loolu lañ koy defal du ay caaxaan kenn yorul ñoo koy dee bàyyi fi la dencoon. Mhm. mais des fois message commentaire yu négatif yi tout le temps métti lii métti lële des fois est ce que doo toog mu daal lay metti di la di la dugg parce que nit kese nga tamit aussi. waaw ah, man nag du ma nit kese ah dama lay wax de xam nga waaye nee na du neenu neen man du ma nitu kese yaa ngi dégg. Mhm. lu neex xalaat ndax jinne laa wala euh, dama ànd ak ay rawaan wala nooxat lu mu mën a doon ñoo fa yëy keccax la ma mën a xam ba xam ko daal mooy. commentaire yi lu mu gën a ñagas ma jël maa lañ koy yónnee message bu foor la ngeen dimbali ma ci lu commentaire yi gën a négatif rek bëgg naa mhm. daf may yokk jom daf may bandiloo mhm. te man su ma bandee rek la may mën a def dama koy def mhm. comprendre nga fu may waxee na gën a xajam ñoo ñoo fa yëy keccax billaay tey jii eh, ñu gisoon la nga dem ci mariage Alioune bi mais après mariage bi tellement que dafa bëri ay coow ba ay fuite vidéo euh, audio am ci ak yenn wax yoo xam ni sa vexe quand même. lay vexé. Euh, borom parce que Alioune ki mu nekkal xale la moom tamit xale la te mariage liñ ci bëgg mooy carrément loo xam day aboutir à quelque chose loo xam ni bonheur lay doon mais mariage boo xam ne matu sa une semaine coow li bari ci trop trop ci diggante Awa Baba Thiam ah ak Sala. ba ba ay ojo di ci di ci di ci génn ba am di ci di ci wax yu doy waar. man daal li ma la mën a xamal mooy. Hmm. li mën nga ma fi ay tur yoo xam ne nii xaw ma leen. Hmm. xamantewuñu mosuñu taxaw waxtaan. Hmm. mais yàqu-yàqu Sénégal laa wax ak xaar bi yàlla di xaar Sénégal. keroog yomal xiyaam yàlla benn dëkk rek la yàqamte muy Sénégal. amul réew yi ma mës a ci kaw suuf man gis ñu nekk am ay mësumaa gis ruubekat bu dul Ndakaaru mësuma gis ku soxor bu dul senegal Sénégal ma gis. ñu ñàkk maanu fu Sénégal gis nga ni ñu mënee jaamu yàlla bañ jëloon paix ci dëkk bu ne ñu respecté leen billahi ñi nga xam ne ñoo ko dese nag ñeneen ñi jaamuwul yàlla bi wax ma seeni wax ñi fi nekk di jaamu yàlla ni ñu dimbali ñaanal ñu ndax fu mu toll ñun ñun suñu kaa dafa critique dañu yàkkamti yàlla daf ñu yàkkamti ñun waa Sénégal pour dumuñu duma yu metti ndax dañoo mën a tooñ mën a rubee mën a yàq der mën a yàq lu neex mën a fekk lu neex bu ko naqari mënul mm-hmm. nekk si impossible mm-hmm. yow mii may ñu la jàmm man may ñu ma jàmm sa micro bi may ñu ko jàmm mm-hmm. kan yooyu noonu nga may wax noonu muy Alioune ak soxnaam su baax soosu di Khadija nga xam ne xoola ñaari tur sell yooyu nga jël leen bëgg leen rube nañ nekk ay bandi fii ku si nekk am nga bu wow koŋ boo génnewul fi nekk am nga bu wow koŋ sa biir néeg wala sa biir kër boo génnewul mhm. di suturaal sa bopp fii nag yi ñuy génne yooyu yëpp ay folklore la ay détails la mhm. barki Cheikh Ibra mhm. yow mariage bu neexee noonu laal Radisson Blu fay benn quinze millions ngay bife ba doyal gos droite waykat bi gën a mag ci ndakaaru star planétaire bi taxaw wayal la presque fukki morceau ñu yëngal réew mi def biri anytime loo xam ne nii ña ko sulli woon sax dañoo mujjee arrière leen keneen doot ko toppandoo mais léegi lan la. mais est-ce que bu ñu demee ba Amzo di ci intervenir ci diggante boobu di ci wax yoo xam ne euh, dafa dafa ñagas. mais man dama xamul ki ngay wax. Amzo Soso. kii kooku waaw non du xaw ma xaw ma xaw ma ma ko man ba ne am sànq ban pour man beneen tur ngay wax ay mais ama xaw ma am xaw ma ko wax dëgg neex yàlla xaw ma man dafa am loo xam ne duma ko seetaan. Mm-hmm. yaa ngi dégg mooy man du ma télé. TikTok nag ba mu xewee ak léegi sama connexion li ma yor yëpp mu ngi koy jeexal ndax damaa dañ kumpa mun naa nekk di yéega di yéega ba keroog may nelaw mais leneen la ci des ay yeneen xeetu doomu adama yi ngi may wax nii su ma ko xamee dama laa xam ne su ma xam xaw ma mu wax wala nga wax ma lii la wax ma xool li mu wax yenu na maanaa wala yenuwul maanaa parce que ñi wax ni ki nga xam ne moo di moom mi ah, moom moo nekk soxna su bugaan te aw baaba dafa am ak moom dafa am ak ki nga xam ne moo di bugaan doom ko am doom la la dafa baaxul mais ak mais julli di def ay di naafi la di taxaw guddi lëmb di julli di ñaan yàlla pour am doom di dem makkatan mu karama di taxaw ci kaawa gi di ñaan doom am doom nga koy bañ lu xew la moo nekk ci am doom dafa baaxul. waaw mais bi ñu amee doom ñoom ñaar euh, li waral ne nañ tax na bokk na ci li tax moom yi euh, présent wu ci mariage Wally Seck. non kooku nag moom ah xam nga yooyu yow il faut nga nekk yow il faut nga nekk ci digg ñànkatan bi pour xam ko présent ak ko absenté. mais présence bi sunu naataango yeeg site yeeg ñi fa nekkoon ñëpp xam nañ ne ki nga xam ne moo di moom ñëwul waa mais tey nit ki amul droit voyager bañ a fekkee sa dëju ñaata nit ñoo fekkewul seen dëju baay ak seen dëju yaay waxuma la ay waxuma la bànneex de bànneex sax dañ koy programmer sànni ko ni dans un mois dañuy xewal nangam te doo ñëw contretemps mun na amee fu nekk c'est que il faut pas gars yi di xajamal. Mm-hmm. di ko xalaatee fu côté fu négatif wala yu détails yu mel noonu. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. bu fekkoon ne bu fekkoon ñaan ñu ñu xamul wala. kii takk kenn xamul magam wala kenn xamul yaayam wala kenn xamul baayam coolu du am diggante boobu ak léegi li ñu fi takk ci ay mariage mat na 795 diggante dimanche boobu ak nii may wax ak yow nii li ñu fi takk ci ay mariage ci Sénégal kenn xam ne mu toll mhm. déggoo ci benn benn bu am bruit mhm. waaw yàlla nag mooy def noonu nit loolu ci biddéewu nit ki lay doon mhm. munoo ci dara ba pare xam ne dafa am kii xam ne ki ci nekk ci kan di déranger di waykat bu mag bi xam nga nga xam a fayee rek mooy jàmm ak salaam yeneen ñëpp jàmm xam nga yor xool bu rafet barki Cheikh Ibra balaa nga koy xam nag xamadi xaw laa rey mhm. mais lu jëm ci côté mariage boobu moom bu leen ma yéen ngeen xaar ngénte bi premier doom beeg ñaareelu doom bi mooy dàq ma loolu man maa leen ko man maa leen dig loolu man mhm. waaw su boobaa orchestre dañuy teg seen yëngal ndakaaru dëbb ko bu mokk lu mbax na seen xel daal mhm. amul dara lu ñagas barki Cheikh Ibra dañuy gis saay bu wax benn wax wala ay wax yu sew bu amee biir faramaaren duñu génn duñu gis ki nga xam ne moo di Met Shop génn te Met Shop kenn gënu ko jigewaale à tout temps dañuy gis ki nga xam ne mooy délégué Ama waaw moom laa lay wax xam nga yéen maa xalaa moom laay wax waa Sénégal man xamu nag fan laay waxee fu ma xam ne ni su ma waxee ñoom ñëpp déggandoo ma mm. mooy tooñkat yeeg ak band yi pour wax leen kan mooy waali ñu bëri nag dañuy bañ a waxee waali waali si boppam day bañ a waxee boppam mais moo leen gën a bandi milliards de fois barke rasulillahi délégué Amar man ak cent personnes yi nekkoon 100 mètres ba deewee fa ay ñoom inoog ñoom booy mystique gaa yu yàgg yooyu ñoom ñëpp waali moo leen gën nekk waga du caaxaan de hmm. profil bi muy indi nag c'est très normal ndax nit la koo xam ne àddina yëpp dañ ko bëgg niveau national international hmm. star planétaire la li nga war a indi mooy sa bëñ yooyu mu dem def ci xaalis bu bari laal ci gàtt gàtt benn huit million yooyu rek lañ ko sant mu koy génne beneen jikko nag santuñu ko mais billahi wallahi tallahi bu caméra yëpp fayee nga tase ak rek ci ruq dalay wan ni moo la gën a bandi kan man ku gën a bandi ku ma gën a bandee noonu ci niveau boobu duma ko xulool duma ko xeexal duma ko waxal dara damay bàyyi lépp mu réglé ko boppam ndax mun na ko mm-hmm. mais à chaque fois la moo tax délégué di génn yow doo def ay live parce que tamit bu ñu xoolee ci réseaux sociaux bi am nga ci benn te boo xam ne ba waxee gars yi déglu la te yow yaa ngi ci biir man daal lu ma mën a wax lu dul xaalallaahu ak xaala rasuulu mm-hmm. mënuma leneen délégué amaat nag gaynde la boo yoree boo dekkee gaynde sa xol di sot am na loo xam ne mën nga ko def sans réfléchir waaye bu action amatee bu doon may moom damay arrière ñaari pas ginnaaw xoolaat tak ndax ma génn wala bu ma génn wala su ma génnee en retour lan laay may supporters yu bon yi you know ma xool xam ne su ma génnee man supporters yi dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin daw attaqué créer ay détails xam nga ruube su boobaa man du ma génn délégué li ma koy wax muy sama xarit ndaanaan bu mag di bàyyi fàllu faal kilifa gu mag la bàyyi faal la yii bu amatee na bàyyi maar gérer ko ndax mën na ko gérer xam nga mode silence bi la mujjee jël utiliser ko silence tekk boobu muy def noonu mu ngi ciy duma plus de quatorze millions de personnes ci monde bi tekk boobu muy def noonu te yow xam nga li ma la wax bu baax a baax. Mm-hmm. yeah. Mm-hmm. Uh, tey Metshop fi musique toll est-ce que Metshop mi ngi génn ñeneen artistes yi ngi dem seen waaw non euh, man benn benn waykat laa laa doon dem muy Waly ak ki nga xam ne keneen ki ci des muy Bass Thioung xam nga may waxee euh, gis naa ni que temps yi euh, sama benn xaritu benn bakkan boo xam ne yow you moom moo lay nekkal xam nga ñàkkul woon nag def nañ fa ñaari yoon dem nañ ñaari yoon gis mu def lu nice di def soirée bu nice ca Vogue xam nga respecté grand bi jox ko cëram ñu ñëpp tamit ñu nangul ko parce que man du ma la nëbb man boo ruubee waali ma ne tekk di la xool loo doon jaay du ma saf nga ruubee bas cung ma ne tekk Ama Balde ma ne tekk di la xool ñett ñooñu laa yor ci ñi nga xam ne nii mun naa leen mun ku leen laal laal ma mhm. lu weesu loolu nag sama yoon nekkul ci lenn mais des fois médecin du du dem soirée Pape Diouf wala Sidi non non soirée Pape nag moom mosuma fa dem man ba ma juddoo ba tey moom xam musique musuma taxaw soirée Pape Diouf peut-être peut-être daa daa jotagul mais musuma fa mhm. waaw parce que xam ba tas. problème mooy jour yi muy fekkee ki bu fekkee kenn ku nekk kenn gis pay bi ñëw ci des dem. Mhm. man mhm. ay deux trois quatre cinq moom. manque ay nelaw ak ñeme taxawaalu rek moo la ci dugal waaw mais boo amee fulla am fayda moom boo xasee ba cof pee bi war ñay leneen loo war ay pain wala la barki sëriñ Touba balaa nga xam ne waale moo bandi ASC bi moo ëpp doole. wax na ko ci way wi di laajal met shop loolu du ay caaxat sunu ASC Toumani Ndiaye Muniru Thiès moo ëpp doole ku weddi laajal met shop lu tax mu may laaj loo waa Sénégal yëpp monde entier yëpp ku ko weddi rek laajal met shop c'est pas loolu du hasard. Mhm. parce que ànd nañ dem voyager ma gis qualité bu muy voyager personnalité ba doole ba day xool li gën a baax mu jël ko li gën a seer rek lay lal hôtel li gën a mag la ñuy dal bii yi gën a seer boo ko nee EasyJet Ryanair waaye day jug fi mu toog dem boo ko nee Air France mu toogaat nee na du jël yenn compagnie yooyu bañu leen waaye du gis moom tamit pay di jël deux mhm. moom léppam pay la. moo tax ànd ak moom voyage gàtt gàtt di nga gis benn cent millions bu dee te duñ fa am lu mat vingt jours. Mhm. koo koy gaynde mhm. waaw moo tax euh, ñu daal di gis tout récemment euh, ki nga xam ne moo di Ouzin mu daal koy offrir li nga xam ne moo di dëru bu cher ak xaalis ba Metshop sax moo yóbbu woon teraanga du mel noonu maanaam lan moo tax ngeen am initiative boobu euh, offrir ko loolu wala dafa am lu mu nekk ci biir staff bi loo xam ne daf leen a manqué marqué. non Ouzin Mbaye dafa xam ne dafa nangu xam nangu jël na cëru ku bañ. yaa ngi dégg Ouzin Mbaye dafa nangu ne centre du peuple xolu jamaa la yor te Ouzin xolam dafa rafet ñoom ñaar ñu nduroo xol mu koy waxal fu ne di ñu dem ba mu jamono mu paan mu paan motoom paan motoom paan na sonn na ci ñaari fan mu koy réparé mënul baax xool na gauche xool droite xool ci kanam ak ginnaawam gisul ku ko ci mën a dimbali mm-hmm. mu am xelu jox nit mu vidéo ko ñu jël vidéo bi envoyé mu envoyé ko waykat bu mag bi mu vocal ma ni ma met Ouzin wax na dëgg xëyal utal scooter bu baax nga wax ma ñaata la ma fay ma dem xoolal ko deux mille vingt deux xam nga Wally deux mille vingt la commencé vingt et un vingt deux trois du dawal lu màgget booy may dangay ngay maye lu bees lu baax moo tax ñu yóbbu ko deux mille vingt deux noonu mhm. laalal ko x max deux mille vingt deux bu ñaari million million ba pare amul lenn lenn loo xam ne defal na ko waale lu tax mu def loolu Adama ba mu defee vidéo dégg nga li mu wax waale yoonam nekkul si na nga bëgg rek yow bu fekkee seret ngay dawal mu utal la seret bu dee buret nga bëgg mu utal la buret moom na nga na bëgg rek moom waaw mm-hmm. ah, lay def mm-hmm. mais ñenn ñi nee nañ genre yooyu la plupart waali mën na ko bañ a jot mais plutôt Med Shop moo moo def loolu ko jëndal Ousin scooter bi man ba ma juddoo laa am sama bidéo moo man man man man coow yé man coow yéemu man ba may teg ay Senghor fii Ama Baldé di bëre premier combat bu contre Kati ñuy dem di ruubee ñëpp yaakaar ne Pikine laa dëkk foo toll di métti sop métti sop bi ni kur ci loolu du tey démb la bu ma santee nag jomboxo àddina yëpp classe sama école jardin ñëpp di ma retaan su ma génne ñu ne ñu may joxe naan mu ngi ne le. lu tax ñu lay joxe. waaw parce que ni ma sant la sant baa retaan xam na sant noobu la bu reetaanlu rek comprendre nga kan ñun ba ñuy ruubee jardin ba ak di ruubee classe euh, ñu koy waxee sax sixième ndaare ba ak cinquième ndaare ba mm-hmm. boobu la coow li tàmbali ba tey jii mm-hmm. kan ñun lépp lu ñuy def day naturel mm-hmm. mais arrivé Banaya ci biir Faramaren lan la la def parce que en plein euh, soirée la taxaw sur scène mu wax ni désormais maa ngi Faramaren ñu dem ba ci biir waar yi offrir ko euh, li nga xam ne moo di oto waaw ah, Banaya déggoo lu mu expliqué xanaa olof yi leer ñu la wax de maamu ak ki jur ndeyam ñoo bokk nangam ak sàngam man man ma tuddee ko ku for xale bu réer ñu ne for nañ xale bu réer xale bu réer bu feeñee nag doo ko yóbbu këram Banaya këram la dem gàllem dafa réeroon dem na këram dafa gëlëmoon ximmiliku na ñëwaat këram toog ci pooju ndeyam loolu kay kenn mënu ko ko tere mhm. barki Cheikh Ibra ba mu defee loolu ku bàyyi nijaayam bu jër millions yu bari ñu ko ko jàpp mu defaat yëfu noobul tamit yëkkati jox baayam loolu kese la amul leneen mënuñu si def leneen waaw du caaxaan de ku mën nag da def rek boo mënul nag yow xolal fair play yam mais nee oto bi dafa day day nduru fayu fayu parce que nit nañ fi mu jógee la jógee ci Sidy Diop ñëw ci ki nga xam ne moo di waal waali waa léegi dama laaj est-ce que waali man maa ko woo wala moom moo woo waa dëgg la gis nañ appel moo la woo waaw mooy dugg nii te dañuy pause lépp nag jël ko. ah kon nañ jël appel waaye. Ah, du caaxaan de. na yaa affaire de ngistal la parce que nee nañ parce que dëpp naa micro ñenn ñu nekk ci Sidy Diop nee nañ ñoom lii far fos dafa waroon am parce que nii la ko mën a defee ñoom oto bi bettu leen. Ah, oto bi bettu leen dëgg lañu wax tax nag dëgg lañu wax de yéen a koy jëlee côté côté négatif rek mayo oto waa yi bettul kenn ci àddina ndax moo dàq mayo oto ci àddina ni mu mayee ci oto boo ko calculer léegi mu dugg ci quarante quarante neuf oto quarante neuf du caaxaan nag du caaxaan de l'orage moo si mujj démb rek ba mu defee kilib bu rafet ba ah ba mu defee clip bu rafet bi l'orage moo si mujj démb omoro oto bu ñu ko joxoon bu zone bi waali ni ko comme da am jëmm baal ma laal la 4 4 Mercedes laal ko 4 4 Mercedes jël oto bu zone bi jox lu laas. kooku mais est-ce que ànd ak moom tamit c'est facile parce que des fois nag ànd ak artiste c'est un peu difficile di nga ci dégg lu ne di nga ci gis lu ne dina am tamit xeexante seen bi est-ce que Met Shop mës na dund loolu mu mu vexé ko metti ko. non non non xam nga ànd. non non boo xam ne ruube du am ci groupe boobu barki Cheikh Ibra du caaxaan nag faramaaren maanaam ñi ànd ak ñi ko jege. ak ñi ko sori mm-hmm. ñëpp dañoo mel ni ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. ñi nekk ci banc de touche nag ñoo ñuy sosal naan ñaar ñee wala kii ak kële mm-hmm. dañoo nàngam wala dañoo sàngam kii moo toog ci kanamu oto bi tey subaa kee mooy toog ci kanamu oto bi te yow borom oto bi nga xam ne léppam dafa naturel buy génn ki mu jàkkaar lool xanaa yow doo fi faanal doo toog waali bëgg ku ko gunge di wër ku nekk jom ñaajo naan nañ ko xaar te am rendez-vous jugal ñu dem la lay wax ngeen ànd dem mais mënoo nekk fépp moment boobu ki fa nekkul mënul toog ci kanamu oto bi mais foofu ñun ñëpp ñoo far gaa yëpp a bokk ndey ak baay barki Cheikh Ibra ñu toog tam benn instant gisatul la ci mode cinéma euh, cinématologue maanaam ci euh, cinéma série yi nga xam moom nga doon joué ñu dog ba benn instant gisatul la ci da nga ko instant bàyyi wala euh, da nga préféré continuer sa business boobu non man ma maa ngi ci ñu ngi ñu ngi tourné ay film doy waar ak ñoom Zozo waa Soleil Levant sëñ Modou Borom Kéemaan maa ngi koy tourné tamit film bu kawe ñu koy wax Nafi série boobu xam ngeen ko. Mm-hmm. mais nag xam nga film dafa am ay séquence ay épisode trentième épisode xam nga trente troisième man mun naa tourné loo xam ne nii peut-être yéen yéen a ngi ci vingt épisode mais man dans fii ak fii ak fii épisode laay génn. Mm-hmm. xam nga mais maa ngi ci ba tey ñu ngi doxal. Mm-hmm. mais à part euh, showbiz beeg yeneen ak yeneen euh, maanaam Metshop waaye woote mu wuyu ko lan mooy business am ci lan lay yëngu parce que gars yi dañ la xam rek ci côté Wally. waaw man maa ngi damay business ci li nga xam ne ni mooy li suturaal nit lu jëm ci suuf terrain fi xew ñu koy wax Malicounda. foofu lañu am kilifa yu mag ñu koy wax màgget seen ñu ngi koy nuyu di kilifa gu mag di directeur kuddu di maire Malicounda ah xaritu góor a fay góor a fay di suma xarit benn bakkan may sa fay di ndijaayu góor a di sama xarit benn bakkan yaa ngi dégg ku mel ni góor a fay moo ma dugal ci suuf mooy day nekk malikunda gis loo xam ne war naa cee am dara mu ne ma allo ma wuyu mu ne ma gis naa fi loo xam ne boo ko jëndee di nga ci am nangam te jaay bi dina gaaw ma ne ko maa ngi xëy ñëw ma ñëw jënd ci moom mu defar ma samay këyit yu am papa am yaay yu wér péng ma doog ko jël jaayaat keneen ndax man sama der bi man damaa yërëm sama yaay bëgg suma ndey bëgg sama baay ñu daj li ñu daj ci man mhm. ma war a baax par force doole mbaam man du lu ñàkk fayda moo may bonloo du lu am fayda moo may bonloo mhm. décision bi jógee ci yàlla kese moo mën a bonloo lu weesu loolu nag moom na gars yi dem tëdd nelaw quoi mhm. ñu ngi ci terrain yi ñu ngi ci oto yi yaa ngi dëgg ñu ngi ci yére yi mais gars yi sax yére lañ la gën a xamee mais li dafa mel ni focus bu nekkatoo ci ci

maam Boussa Fall di yaayu sëñ Abo Mbàkke di suma bàjjen jën ngi may dégg ma bokk ak ñoom sëñ seexu naa ak ay doomu sëñ Abo ñu nekk sumay cousin kan man xam naa maay kan man maa valeur ci réew mi mhm. du ma pinwle déedéet mhm. mais gars yi ne nañ ne complexe la pour jaay ay yéreem Sénégal am na fu ñu dégg sax nga ne dañ lay leb ba bu ñu xoolee à l'extérieur ngay faral di jaay te ngay doomu Sénégal nga ne dañ lay leb Sénégal ñoo daq leb ci àddina ñoom ñoo ñeme risque waaw. jamono après naa la bëgg fii seen seen amul amul lebal ma tubaab li mu am lay duggee marché jeex na. Mhm. fii dañ lay fekk nag ngay dem ñu ñu ñu gasal la ngan di kàmb te yàlla ñu jox lekk ak naan bu ñu feebaree bu ñu la gisul duñu ñu faju yow lañ gasal kàmb ngir nga dugg ci. waaw waaw ci ko yeeg bagage yeeg lépp métti métti bi képp ñun ñu tudd Mouhamed yëpp ñu ngi bëgg a dee billaahi du ay caaxaan dañuy gasal kàmb dañuy yéene lu bon dañuy yàq suñu der dañoo ne dañoo mën a dañoo sopp dañoo terrible dañoo nangam dañoo sangam ba ñuy xale ba ba ñuy nekk mag ñu amuñu jàmm ndax ki ñu tëddee moo foor mm-hmm. te moo ñuy jàppale nag di ñu protéger ci biir ak ci biti lu ma la wax du caa. ñu fi tuddee ay yeneen tur saa bu ngeen gis seen turandoo dem Pikine maa Parcelles maa Guédiawaye maa Sacré-Cœur dem seen turandoo ñun amuñu loolu waaye baati loolu. ñu ngi toppatoo di ñu. sallallahu alayhi wa du ay caaxaan. Mm-hmm. ah maa la wax loolu. mais ñi xam Metshop dëgg nee nañ Metshop ndongal daara la waaye dafa ñëw lépp puus ko puusaale ay xaritu démbam dund la ko saf dundatul Baay Faal ndox daara boo fa nekkee dafa am uh, yenn qualité yooyu am man na la man daara sax ba ma fa nekkee dama doon kiris koros dama lay wax lu leer nga xam ko diggante njaareem ak Mbakke mm-hmm. mujj bi xam nga business sama doon sama tànt yi ñoo ma yóbbu business ba ma nekkee Mbakke parfois xaalis du am ñoo may yenu yóbbu ma Tuubaa ma toog ci xabru Sëriñ Tuubaa di fa tajwid alxuraan tajwid mooy neexal baat comme ni ngeen ko waxee yéen su ma neexalee baat ku ma romb sànni ma xaalis ñu dajale ak xool lu ñu am demaat ñibbi mbàkke ma xool xam ne lii naqate business la sama xel bi ñu ñoo ko jëlee ci daara ji dugal ko ci business mooy wax ba ma xamee damaa fàq ndakaaru laa juddoo clinique internationale boobu xaalis amul dama lay wax lu leer sama bàyyi kilifa gu mag la ca Baltimore amee am benn doom bu góor muy man maam benn doom maam benn mag bu jigéen muy muy astu yaa ngi koy dégg way borom way yu neex astu gay borom borom Espagne nañ fair play jàng alxuraan du tax nag boo foo dem rek di tari ay saar jàng xadis mokkal naxu wala fiq wala tawxiit du foo dem rek taxaw ñuy wax lii ngay wax lale mm-hmm. luñ bëgg ñoom. mais moo tax léegi. man ak sama xarit bi ñoo ànd topp ma dàq topp waali téeméeri junni yoon moo tax ñu fay daje man man. man xaw ma lu bees ci télé laay waxee lii nag amul ay site internet kii li télé la ndax lii du ay caaxaan mu ngi yëngal réew mu ngi déranger kenn musul tase man Nord Foire walla Ouest Foire wala Sud Foire wala Sacré-Cœur wala ay Fann Résidence wala ay nangam sangam amul man su ma yeewoo sama mbaaru xar laay dugg su ma amul lu ma dox maa ngi ci buntu kër gi toog sama. lii tubaab boobu demee jëlal micro kii nag boo boo demee da leen di bu ñu reeree fii fee la bu ñu añee fee ndekkee fee man aw ma jot boobu ni mu mel démb noonu keese diggante saf booru aéroport fa la ñuy lekkee bant ya pap kanj yaa may dégg jeex na ñun dara fere gew ñu ñente maa la ko wax Me Shop ban moo lay tëjee émission bi wax li nga xam ne moom la showbiz di dundee ak li nga xam ne naan talent amatul mais talent moo am talent. non mais ñu koy wax mooy ñi nga xam ne dañoo découragé talent am na Maria Sy bi yàlla dimbal ko mu am talent yaru na baax na topp na ay kilifaam ñi fi nekkoon ñi nga xam ne dañoo mën a way adduna yëpp xam ko mu xool ci ñooñu ba romb ñi fi nekk di ruube loolu kese la balaa ngaa dab ku def ñaari fan nag ci yoon. mais moo tax ngeen bëgg a jël bi daa koy jox te ku ne xam ne sunu sunu njiitu réew nag Macky Sall la. kooku mooy son excellence. de la république du Sénégal. déglul olof de France wala France wala déggoo France. boo ci wax ma jël. waaw fam son excellence nag. Mhm. de la musique sénégalaise. ñu koy wax Mar Yacine Meissa Bigué mais loolu loolu loolu moom tubaab bi moo créé ay moom ñun ñu taqale ko jël A ak B C D ut si luñ si jël luñ soxla boole ko mu génne son excellence. Mhm. musique sénégalaise nag moom moo ko moom moo ko nii nii mooy star bi. mais ministre bi. premier ministre bi nag kooku dama lay bàyyi ak nga woo Omaro xam nga xam nga Omaro. waaw ah. moo nekk di sélectionné moo yor affaire yi mooy fal di falaat moo lay moo lay teg poste waxtaan ci président. Mhm. ñu xëy def euh, li am par jeudi mu tudd sax conseil des ministre mhm. ñu yégal ñi wàcc ñi man démb woo nañ ma téléphone ngir jox ma post bu bees xamaguma ban la. ban poste nga ci occupé. xamaguma dañoo xool xool ni gis ne vraiment. Mhm. 2009 ak 23 yàgg na. Mhm. te met ba léegi kaasul puusul paasul ma nga jàpp ñàmburam. def lu muy def ci fulla ak fayda. Mhm. ñun ba ñuy topp waal yi di jël cette place man ak ñaaxariñ loo. ak ci 500 yi. waaw yow dama ne 500 yi sax ñoom 500 yi lii moo gën a yàgg condamné waale ni damay tëgg fii ak 6 mois damay tëgg Kaolack nga condamneel ko am paas dem ca pompier bu njëkk ba jël oto dem wàcc jaar ba. dox man dox naa ba waali forme ci kaw tali wàcce veeram ni barki Cheikh Ibra nga gis yërmande ba mu yor oto bu weex ni ma yéegal yéegal yéegal dañ maa surcharge ñu dem hôtel Àjjana mu boole maag néeg Pawlish Mbaye waali ànd nañ Ndar Gàmbi Matam Kolda fu ne mhm. boobu yow boo ñibbisee boo wàccee Colobane da ngay dox ba sa kër léegi yàlla dogal nag ci sunu jëmm ñu am lu ñu ñu am suñu oto bopp di ko taal war ko fekk fi mu nekk yàlla dogal suñu jëmm ñoom am suñu paasu avion suñu biir avion am suñuy visa war a ànd ak moom fu nekk ci àddina foo xam ne nii loxo mu ngi si moom day mu ñi ko ñi ko ak ñi ko ñëpp bëgg ko te yàlla tax ngeen nekk à l'aise daanaan la de nee man ak moom ba Amerika incha allah mhm. te da koy def par force doole mbaam mhm. da koy def <laughs> lan mooy sa mot de lan ngay tàggatoo mooy ñu gaa yi nañu ragal yàlla nañu mhm. te ñu julli ci yonent bi bari waa Sénégal te xam ne am nañ benn lien bu rëy ak yàlla bu ñu nekkee nii ci réewum jàmbur bii mm. nga xam ne képp ku def lu baax lu bon a léegi boo seetloo ñi ñoom lañ yaakaaroon ñu ngi leen di waxal ay yoo xam ne nii yenuwul maanaam amul teggin mm-hmm. loolu la ñuy wax axiru zaman mm-hmm. xulul xaq gaa yi walaw kaana muran man maa ko wax de mm-hmm. ah dama leen wax lu leer de man nag man li ma xam ba xam ko sant naa yàlla mooy yar nañ ma ci baax xool bu rafet laa yor kenn mënu maa fere kenn mënu maa yëngal kenn mënu maa bu ma xam ne ànduma rek respect fi nekk ñi fi yàlla jiital mhm. bàyyi ruube ak yàq der ndax neexul mhm. kuñ ko def mu metti trop yow mhm. dañ yi ñu sëy waay ñu bàyyi yi ñu nekk seen jàmm ñu bàyyi gars yi way dañ yi way way gars ah, ah, bu ko kenn wax bu ñu ruube waaw li ngay def leer na set na cling na di kontaan sa jëmb bul arrière bu la kenn xoqatal kaana bu mag a mag nga waaw donc merci beaucoup li ci diwaan daw leen gaaw ngeen abonné ji ngeen ngeen mën ñu dooleel bu leen fàtte bës cloche de notification bi ngir nga mën a am information à temps réel ici et ailleurs merci